waaw mbër bu loolu weesoo tamit ñu daal di gis Balla récemment donc ci champ politique bi donc ci politique bi ah mu ànd ak waa Benno Bokk Yaakaar te aussi ñu bëri daal ni moom euh, bëri na ñu koy bégee waaw am ñu ni sax ñoom rafetlu wuñ lool yow nan nga gisee tey geste boobu nga xamante ni Balla def na ko. waaw damay wax rek parce que nit ku nekk ak sa xel fu mu man su bëgg ni que dama koy bëgg ngir li def leneen lu mu def man intéressé wu ma parce que moo xam lu tax mu koy def du dëgg senegal nak metti na pour nga dund yenn yenn yenn melokani tay bu fekkante dañuy supporter Balla gay lamba tax du deug mais dafa am lo xamanteni view bopam la dañ koy bàyyi ak mom moko mom tay te it euh, am na ñoo xamante dañuy son ci yow te ci politique politique lañ nekk tay bis sen bis dañ ci son yëkëti ci ay teraanga yi dul jeex diko ci def di fay ay serigne ñu lay ñaanal yëkkat ay t-shirt di la ko jox mais ñoom am nañ bis da gor gor rek la mëna doon po man parce que nit na bu la yëgë dang ko yëg bo sonnee ci mom ba amee bis dama nga taxawu ko parce que nit ku ne amo lu sa bis man da ki bu dul bala gay sax dama na ne képp kuy supporter mbeur bu démé di politique koku problème am la pan po man yoonu kenn du ci war ci nek parce que tamit boko supporter ci lamb supporter ngir lambam su jeex bu làmb jeexee jeex parce que li ko war na da ko war a defi ji mais kantaaw ay dem fii wala dugg ne wala tan fi loolu moom fi la man li ma métti wala li may may bañ mooy mu dugg ci loo xamante ni bokkul ci domaine jullit wala bokkul ci vie. kon su ma la déggee daal Balla Gaye 2 citoyen la comme ñëpp am na droit def politique far fu ko neex comme ni ko Sénégal yëpp amee droit boobu. xam nga dem di politique ak dem euh, delloo nit ku njukkal ça veut tey mën naa dem ànd ak tey koo xamante ne moom la war a àndal bu fekkente ne kooku dafa sonnoon ci moom ci ay bisam. mais koku ba may bis lal moko war mu ñëw taxaw ko soutenir ko man non la ko gisee. mom bop man non laay man non laay non laay dundé ak nit suma lay faral nga espoir bi nga bi nga nek mom la lay faral bu espoir ba jexé bo ci défé leneen koku yaw la ma lima ma intéressé moy sama mbeur na entraîné lima intéressé moy sama mbeur na nek ci condition bo xamanteni fu mu taxawé tey di bëré sax bala bëré sama xalé dal man lo moo ma intéressé mais cas de vie nit nak mom pour man jarul dugg kon suma déggé say kàddu mbeur moy Balla de bu bu démé and ak ñi nga xamante ne tey nañ sonn ci mom ñu nekk côté APR daf leen wara a ñukal té liko war la def. ah loolu ma yoon loolu ma yoon tamit moy ku nekk bis sax maanaam té nit bu lay dimbalé tay mom bis gisoko dégguloko mais tam est-ce que ba légué na la taxaw dot la taxaw dañu waxante dëgg parce que ñun suñu bis la ñam man de képp ko ma taxaw suma bis sa bis dama la ci taxaw. wax dëgg yàlla nag du ma nangu nit gën ma mukk kiy wax bu ko neexee wax lu ko neex mais li muy sekk ak ñooñu moom xam na yàlla xam na méttiwul daal. waaw mbër kàddu yu leer na mais bu loolu weesoo tamit Géejawaay info doon site boo xamante ne tey dañ ko taxawal ngir waa Géejawaay tey euh, bépp doomu Géejawaay boo am bis ñu accompagne la di ànd ci ak ba ba ba nga yegg ci sa bis tey boo amoon looy wax ci Géejawaay info lan nga ci wax. waaw dama naan yéen ñi ko yéen ñi ko yéen ñi ko yéen ñi nga xamante ne yéen a ko waral defoo leen ko ngir seen bopp dañu dañ ngeen ko def ngir doomu géejawaay parce que gox yi bëri nañ fi banlieue yi bëri nañ fi mais da a jël li def ko bi nga xamante ne mooy gox bi te tur yi bëri nañ fi bu la neexoo mën ngeen choisir yeneen tur man damay ñaan yàlla lii mu doon ba dem ba nekk télé boo xamante ni dana dem ba mel ni te ay TFM ay 2S wala seen TV wala Walf wala lu mu mën a doon. parce que tamit kontaan nañ ci yéen yéen a ngi taxaw nit ñi yéen a ngi suti soutenir nit ñi aussi tamit damay ñaan yàlla rek yàlla jural leen ay télé yi télé ñu dem ba géejawaay sax fi ay télé télé mu yàlla jaarale ko seeni loxo ngeen réussir tamit ci li ngeen di def moo xam kenn ku ci nekk waar ba ngay liggéey yàlla xéwala la ci yow ay waari waar ngir ëllëg nga mën cee gis sa bopp parce ku nekk tamit li ngay liggéey ba nga cee gis sa bopp parce que loolu mooy opportunité bi loolu mooy sa avantage maa ngi leen di ñaanal yàlla tamit yàlla defal leen jàmm ak wér ak taw tawféex waaw ça le de la fin lan ngay tàggatoo ak ban message ngay lancé à l'endroit de la population guédiawayoise particulièrement la population sénégalaise. waa d'abord di ñaan yàlla jàmm yàgg fi rek parce que ñu ñëpp ci jàmm lañu xaj dama di nuyu Moussa Fall Andaw Pape Mang Pape Mam Talla Meng Simon xam nga euh, ñi may àndal Badara euh, commissaire Séni Simel xam nga ak ki nga xamante ni mooy suma nattu bi muy Birama Ndiaye di nuyu suñu famille bi yëpp sama yaay maa ngi koy sant di ko gërëm Omar baas tamit aussi maa ngi koy sant sama ko sonn ci man la di gërëm ki nga xamante ni mooy Kader Ndiaye moom it nu ko baala ji xam nga bi ñoom ñëpp sant naa leen gërëm naa leen di gërëm tamit ki nga xamante ni mooy euh, sama grand bi waay mooy bëgg <laughs> waaye peut être sama tur bi dina ñëwaat ci man parce que tamit waaw ñi SAP may mooy loolu. di gërëm ñi nga xamante ni ñoom ñëpp dañu sonn ci man ci bépp côté nag di gërëm sama benn xarit bu nekk Pikine aussi ndax moom suñu supporter nañu ñëpp ndax borom baax la di nuyu soxna yi di nuyu njaboot gi di wax sama yaay tamit ak yaay ñëpp ak papa yi ñëpp yàlla na fi yàlla bàyyi ba ñu mën a soutenir seen i mbir. di souhaiter tamit sama soxna happy birthday le 25 bi ni ñëw di ko ñaan yàlla jaamee ko jàmm. wéra gudd fon may ko ñëpp nak ci bark barke mo Muhammad musa Fall tam sant na ko baax ndax mo waral émission bi waaw. waaw bokk internet yi loolu moo doonoon waxtaan bu am solo bi nga xamante ni séq nañ ko ak le grand champion Sa waaw comme d'habitude rek mu doon mbër moo xamante ni donc ci teey gi ci yar gi damay sawar di ko dégg suma micro mu daal addu jëmale ci li nga xamante ni moo waral toogaay bu yàgg ba combat yi nga xamante ni ñu ko doon dox ya mu yàqu tamit wax na daal ci leeral wax aussi ci blade Gueye de boña am na lu ci sani dal ñu ci jox xalaatam dal di wax itam donc ci bala gay numéro 2 actuellement ci politique biñ koy gis na lu ko lool yeb aduna jëma len ci mu doon waxtaan bu am solo comme ni may faral di ko une discussion pleine d'enseignement donc euh, di len jox rendez vous prochainement euh, di len sante di len gërëm di sante aussi suma technicien présent Bekay kundul jaajëf